mbokki Sénégal na ni moom moom arène nationale saa bu fa wootee nga xam ni daan naan woote na arène nationale la ñu ne Fallou Ndiaye borom Ndiaye production moo ni mbokk yi moom la Fallou Ndiaye borom Ndiaye production dama ci sargal ki nga xamante ne mooy borom coalition Sénégal dama ci sargal ki nga xamante nii moom la ndawi Sénégal bëgg kookal la ne Mambay Niang candidat la mairie de Dakar borom coalition 2035 mbokk yi moom la Fallou Ndiaye di sargal ci bisu le 9 fan ci arène nationale imam mbay am nga lu rëy ndaw ñi ñoo la sargal ndax kat ndawi Sénégal ku nu bëgg ba sargal la am na loo xamante ni def nga ko indil ko combat bu mag bi nga xamante ku doon amateur bëgg nga kookal la ñu ne Vieux xale bi nga xamante nii moo nekk ci Kër Massar xale bi nga xamante moo nekk ci école de lutte Boy Sey moom la jël boole koog Youssou fàtte waaye li ci gën a neex Mame Mbaye Niang sa bis bii combat spécial bi jar lu ne Baye Ma Ndiaye numéro 2 mbokk yi jéeri ngoone mi ci ndaat moom la ñu jël boole koog bébé mi lébu bi bébé wulli bu boowal dina ci laale ak am lycée uncaa dina ci dajeeg loo karim caatu puyool bi dina ci bëree ak guy gi deux mbokk yi de kat moo xarañ saar la caatu jolof dina ci laaleeg armée bu ndewraan mbokk yëlli dina ci dajeeg kama junior ay dara moom ak ñang bawal yegsee arène nationale xam ni waa ji yegsi na arène nationale yamu la de eh akay yàqamti nga fa yegsi ndax saa yoo fa ñëwee def lu fa kenn musul def mbokk yi bisu la neuf invité d'honneur ba dina doon ki nga xam ne mooy le président des amateurs de lutte kookal la ñu ne du jànjeko mi bëgg yi ak kan ñu ne Aïda Ndiong waalo waalo bi Aïda Ndiong doomu Sénégal Aïda Ndiong mi nga xamante ne nii mooy yaayu Sénégal mbokk yi ñoom la ñu def invité d'honneur le 9 janvier ci arène nationale Imam Mbaye bis bi nga am réy de làmb daal xamal ne def nga lu rëy ay la neuf arène nationale Ndiaye production yaa wóor salaamaaleykum mbooloo maa ngi ñu fi teew ko maa ngi nuyu di sant sama yaay di sant sama papa di sant sama sëriñ sëñ Abdourahmane yàlla yaa yokk leeram te taas ñu barkeem waaw di sant promoteur bi tamit mooy loolu di sant sama gars yi ma ànd ay ñoom Mor Mor Ginaar ñoom Aliou ak ñoom ñoom Angola ak ñoom Aliou Thiam maa ngi sant ak ñoom seex sama gaa yëpp maa ngi sant ñëpp te lu ñu fi dajale saa moo taxal saa moo taxal benn combat di sama naat naataango muy ñaawu ndaw waa di ñaan yàlla tamit bis rek suñu borom defaral ñu ndam seetu guy xam naa ko champion la xam naa ko champion la champion la noonu daanaan la daa mun li muy def ma loolu meeram lay dajale doomu mbedd mi. rëm doomu mbedd mi yëmbal buun bi mooy loolu <laughs> waaw mooy loolu nañ baa bisu rek à suivre mooy loolu ma jox ko moom mu nuyoo sant gërëm waaw. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom daaru ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di sant ñi ma àndal samay mag yi xaari dund. di sant sama sëriñ sama papa sama lépp maam na boroom daaru di nuyu waa Sikoor yi waaw di leen wax ne maa ngi ñëw léegi incha allah temps bi xaw a xat rek waaw di nuyu promoteur bi taxawal combat bi nii di nuyu ñu fi toog ñëpp di nuyu sama manager Abdoulaye Ndiaye sama papa sama lépp waaw di sant bu baax a baax a baax boroom daaru Noreyni di ko santaat di ko sant bu baax a baax a baax a baax xam naa kon daanaa la <laughs> doomu mbedd bi alors ay waxu mbër rek ñu loolu miin nañ ko. <laughs> non parce que fu si milieu loolu miin nañ ko waaw maa ngi ñëw xam nga rappeler si sama ko euh, sama kantoora ak moom wax ji jarul muy bëri parce que combat des bari na trop trop trop waaw mais moom sax xam ne am na combat waaw moom moo la gën a xam loolu moom bu xam ne adversaire yi doon am ak adversaire yi nekkul benn man tam dama koy nangul champion am quoi parce que ndaanaan la waaw mais ndaanaan daan moo koy daan waaw ndaanaan daan moo koy daan. ndaanaan daan moo koy daan ko wax xam nag tam di ci woo sama papa Ahmed ay di ko wax di ko wax waaw loolu waaw loolu lépp dëgg la daan na de Ziga daan na Lassane Nder man tam li doon passé laa daan champion la daan fi boulon bëri na fekk ndaanaan bu nekk man bés jaaxaloo ma bëgg man nekkul bés man man bés ma dépassé non man may xale bu ndaw di entraîné mu may jaaxal man may bu ndaw di entraîné guddi moom xam na bu baax a baax jor ma koy dara xam na sama lépp xam na xam non xam naa ko làmb rek làmb laa xamee ndax moom moo topp tamit naa ma rëm laa bëgg a bëral n'est-ce pas yaa dégg te man tamit boobu ba léegi yaa ñu ngi dox samay komba ku si dox sama avance da ngay dem ba làmb ji taxaw ba avance war a ñëw gars yi seen staff yàq làmb ji xam nga ah, waaw après Sam su ma contacté man damaa gëstoo jël ko. <laughs> damaa gis jël ko de ay wax si làmb xam nga li si làmb man def naa ñaar grand combat la min waaw damaa tourné jël ko non du jum ñu ay naataangool dañoo war a bëre moom champion dañoo war a waaw comme instant na moom mu ngi lii rek naa ko jël daan ko dem xool leneen la min parce que Serigne Bamba ah non comme day wax rek nee naa bëgg bëre ak man n'est-ce pas ba ma promoteur waxee laaj ko promoteur ba ma dama ko ne non non comme wax dëgg yàlla. tegaguma ko bàyyi ba bàyyaguma ko xel quoi ah xëy na moom moo ko xam <laughs> ñaam la loo gis man. moom nee na man maa bëgg a bëri ak moom non non nekkul dama bëgg a moom de dañ ma limal ay adversaires yoo xamante ni man ak ñoom tolloo woon poids ak gabarit ma leen rëm man moom tolloon nañ taay ma tëkkuwuma la pour bëre ak yow da ngay déglu émission bi dañ ma dañ ma question ne ma sa diggante yaak benn mbër ma leen maag ma maag booy yooyu du du làmb rëm man ak moom adversaire de taille lañ combat bu neex lañ nekk mais nekkul lu bëgg bu rek yow waaw mais champion la fii amul méchance fii amul méchance man damaa bëre ba àdduna xam ma waaw dama bëre ba àdduna xam ma marqué sama empreinte si làmb làmb moo jot la ñu war a bëri waaw dafa am méchance chance naa ko jël incha allah si kàttanu yàlla am su ba ngay taxaw si mool invité yàgg gaay taxaw dund sa moo la yàgg dem mooy làmb ji yàlla xam ne kii moo ma sonal pour moto moto ma jël ko tamit ku nekk naan booy wee ngir moto ma jël ko maam ay xale lañ ñoo war a mun a mayante xaalis maam ay xale ñoo war a mun a mayante xaalis man xam la laa ñaan promoteur bi lamb ji mu teel a date teel a teel a ñëw ñu bëri xool xool leen ndax dañoo war a bëri waat parce que Serigne Bamba laay rëm gis nga carrière nu mu doy <laughs> ki ma de mais dama ko respecté na jox ko cër non non man ñeneen ma doon wax ñoo ëpp coow kii sax barke Serigne Bamba. mais ñooñ maanaam seen staff ñoom ñoom ñumewul maanaam sox bu gàtt quoi. instant nii instant nii instant nii ma coow yombul mbër bëri na fi dix grands combats kenn xamu ko affaire du affaire ay grands combats grands combats grands combats man am na ñoo ay sept grands combats bëgg a bëri ak man man maa bëggut a bëri ak ñoom affaire du bëri naa grands combats fii mën nga bëree ba làmb ji ñëpp kenn du la xam ah affaire suñu borom mooy def loolu sama coow ak sama biir moo tax nga bëgg bëre ak man waa dégg nga ma est-ce que maanaam heure bi ma posé question du ma wax benn mbër boo xamante ni man ak moom du làmb moo tax ma jël exemple ci yow parce que ndaanaan nga maa la gën a respecté fuuf maa la gën a respecté ba je respecte toi beaucoup beaucoup voilà bul bul bul bul foog ni man dama la jàpp comme mbër yii nii dama la jox sa tool li nga moom ba bis ba ma sa sama bopp man la li ma liggéey jóge fi promoteur bi di ko wax mu jël temps man dama jóge si combat waaw non déglu déglu ma wax Lamine même wax la même wax même wax non même wax même wax dama koy ñaan dama koy ñaan rek xam ma dama koy ñaan rek waaw nag parce que xam ma dama parce que dama bëgg billet bëri waa parce que ñu may seen poche dama bëgg mu xaw a ko waat gars yi si jàpp waaw dama bëgg seen poche xaw a suqaliku waat xaw a néew waat ñu mun ma may ay cinq cent mille un million yi mën a ñëwaat mais ba ma ko en sonnement yi la su ma leen waatee danañ combat ba man kii bu nekkoon suba sax ma bëre ak moom mais xam nga la moo tax dafa am booy ne sama ginnaaw mu ne ma jënd bolog te dama ko bëgg a duy waaw dama bëgg bolog yu bëri voilà foofu laay waxee mais du man pare man léegi-léegi mën naa bëri moom léegi-léegi mën naa bëri moom barki borom daaru bu ma yaakaar mën naa bëri moom léegi-léegi man man xoolal ba ba ma bëree ba pare damaa xëy dem jàppale Bamba Ndiaye contact nga xam ne kon man laam man pare naa Lamine ki maa ko gën a pare barki Serigne Bamba man lamb damaa bëgg date bi teel a ñëw un mois deux mois baax na ñu bëre ma ak moom teeral teeral yeewu sama supporter te nag di wax gars yi tamit nii lañ ko gisee rek lamb ji démb la confirmé quoi moo tax xam nga après tey dañoo ñëw di présenté wu pour gars xamee ko noonu la leen wan lamb ji démb la confirmé non lu mu laaj rek Lamine am na Lamine yow xam nga ma bëri jot bëri naa fi deux Ziga nga ne ma kii kii lii mën na la barke sëriñ Bamba bu dëggale boom du yàgg war na Serigne war na Serigne Touba Baye Fall la ñaawee taalib Serigne Bamba lañ moom taalib borom daa la daaru la ma taalib Serigne Abdourahmane la ibnu Serigne Mbacke Madina mais moom bu taxee dëggal boppam laa am du mot une minute barke Serigne Bamba bu taxee moom laa dëggal boppam laa am du yàgg de la min la ma damay wax di jëf. sa combat ak Deux Giga dem si Deux Giga da ngaa ko dóor ko naax lem ko da ngaa daw bi da woo xeex nga jënd classe seet naa la comme man nga wax dëggal sama bopp man man man man man dama mës a bëri ba ah, combat bu yàgg man mosuma bëri combat bu yàgg man maa neex a faral dimanche da ñëw sant ba fi ma libéré man dama mës gis ma cons combat waxat ma mës a gis ma bëri fi combat mi temps ñëwaat kooku seet naa say combat bu baax a baax a baax a baax baax xam naa ko bu baax démb nelawuma si mu daan nekk ba quatre heures du ma respecté combat bi de ma bëgg komba bi. barke Serigne Ba moom du xeex moom day yooru moom bu taxee mu duma ko man maa ko billaay bu taxee mu doo ko dóori met daan taxee laa mu doo ko dóori met daan ko moom na taxaw dëggal boppam rek. màggali xeex ba waaw non maa ngi jaar gaa yëpp non lii wane na boppam ku ne danga nga wane sa bopp rek vraiment kii dimanche comme ni ko waxee rek samedi la jóge fii Sénégal gépp teg nañ seen bët li mu fi def aussi comme ni ko Rëm waxee rek Rëm aussi dafa rampe def ñaari grand combat daan la Sender euh, daan deux Ziga waaw ñaa bu ndaw tamit kenn dootu ko laajte kenn dootu ko naataable wax dëgg yàlla. moroomam bu na war war na ko mën a jël waaw làmb ji daal vraiment dama ciy gërëm ba pare Matar Ndiaye ki nga xamante ni moo ko yombal muy manager euh, Rëm ak Abdoulaye Ndiaye vraiment ma leen gërëm bu baax mooy manager euh, Niang bu ndaw vraiment di rafetlu initiative bi di la gërëm yow it Lamine ba ma la ooyee démb wax dëgg yàlla dang ma jox rendez-vous ñëw waaw di gërëm aussi ñaari mbër yi waaw Rëm tëgg naa ko tëggati ko kii maa ngi koy soog a tëgg mais vraiment aussi booy bu am la. aussi que mbër bu yaru la mbër bu baax mbër bu neex bëgg la aussi vraiment rëm tamit la même chose kon ñoom ñaar daal dama leen ñaanal yàlla rek yàlla defal leen jàmm am nañ yaakaar daal ñu bëree avant corps ñu ngi ñu pour date bi incha allah bu yàlla defee mu sotti daal yaakaar ñu bëri ci bu dul lool rek après corps mais am nañ yaakaar ne dinañ bëri avant corps waaw bu ci bu incha allah d'ici une semaine dinañ xam date bi aussi que dinañ xam euh, parrain yi waaw xam nga ko te ku ne xam ne journée vraiment nit ñi dañ ma doon sonal di ma xam kañ ngay tëgg kañ ngay tëgg moo tax ñu wane te aussi que am na yeneen affiche yu ne suñu kanam yoo xamante ni vraiment waaw dina gën a garaaw daal mais li combat choc la ay ñi ko bëggoon bari na laat xam na li ma ko Matar xam na li ma ko ñi ko bëggoon démb rek ñi ko bëggoon bari na trop waaw mais yàlla moo dogal ak ndogalam vraiment waaw may woo ñëp nag di woo amateur yëpp di woo ak axlu làmb di woo waa Thiaroye sur Mer yëpp di woo waa Sandaga ñoom laay bu deef di woo ñoom mot seen xam nga ñoom Aziz Camara ñi may taxaw ñëpp vraiment di woo waa Thiaroye vraiment di leen wax ne le jour ji moom waa ñu ñëwaat rek ak lébu gi incha allah. waaw ah, salaamaaleykum maa ngi nuyu ku ne sant <laughs> di sant waa Yëmbal xam nga waa Buun waa Mbedd Fass surtout waa Mbedd Fass chauffeur rek emprunté 100 pour cent Mbedd Fass maa ngi sant du du nuyu waa Kër Massar waa Buun bi xam nga waaw di sant sama gaay ma àndal. du sant sama gars yi ma ànd ay ñoom Aliou Thiam xam nga moom sama nit bu baax la ak moor Ginaar Mor Ginaar tamit day sonn si man Angola di sant waa Fass di sant suñ coach Saer xam nga di sant sama gars ay ñoom Cheikh Touré ñoom Ibro Fall ñoom Ousmane Faye xam nga su ma limee jëm di sant ñëpp di woo waa Mbédé naan làmb ji seen làmb la waaw comme comme comme comme comme ni ma ko daan defee rek waaw jàpp ñu bëree daan dem ñibbi xam nga waaw ba ma jógee si ay gërëm yàggul si combat laa jógee gërëm naa ñoo ngi gërëm ñëpp waaw woo Ahmed ay suma papa waaw di ko wax ne ko sa doom am na grand combat premier grand combat sama bopp ci tike xam nga Cheikh Diop américain borom États-Unis combat bi may na ma xaalis bu bëri da ko wax Cheikh américain combat bi si guddi si waxtaan ak yow noonu la ma jox grand combat nga nga xam nga Ousseynou Ndaw Assane Ndaw sama boy nekk États-Unis Sidi ah Pape Diop King Nene mafia États-Unis bi yëpp waa Espagne Ibou Thiam borom Lyon maa ngi koy woo bu baax si combat bi combat bi paas jàpp na si bu baax a baax a baax dama bëgg gaa yëpp jël may bolok man sama cumbukaay nice amul benn problème dund mi ngi fi waaw sama papa moom ma ko dénk li mu war si man yëpp mi ngi koy def ak ñeneen ak ñeneen mais dama bëgg sama tout tànk yi ay xale lañ combat bi paas dañoo jaayante jënd ay ticket yu junni junni yu bëri mais bëgguma bi paas li leen doon taraal leen dama bëgg gaa yi taxawu leen bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi woo waa Guraas di woo waa dëkk bi leen wax dëkk bi na combat am na grand combat waa zone 1 zone 3 bi yëpp maa leen woo zone 2 zone 3 bi wal xam nga ba ceddo ñëpp gunaas ci suuf tëli bu bees gaa maa leen woo ci combat bi di sant na xam waa mafia sele bi moo wax dirigé sant ñoom Assane Assane manqué woo si combat bi naa ko moom bii la si bëgg rek ak Tafa Touré ay ñoom Soro Diagne Ibou Diagne maa ngi sant sama grand bu baax la di sant waa waa PA waaw di sant ñëpp su ma leen demee jum di sant. la numéro un yegg si waat na waa ji ñëwaat na ki nga xamante ni moom moom arène nationale saa bu wootee nga xam ni ndaanaan woote na arène nationale mbokk yi kooka la ñu ne Fallou Ndiaye borom Ndiaye production moo ñëwaat bi su le 9 janvier 9 janvier di bis bi nga xamante ne ni mbokk yi moom la Fallou Ndiaye borom Ndiaye production jël ne dama ci sargal ki nga xamante ne ni mooy borom coalition Sénégal 2035 dama ci sargal ki nga xamante ne ni mooy xaritu ndawu Sénégal dama ci sargal ki nga xamante ne ni moom la ndawi Sénégal bëgg kookal la ñu ne Mambay Niang

gën a neex Mame Mbaye Niang sa bis bii combat spécial bi jar na lu ne Baye Ma Ndiaye numéro 2 mbokk yi jéeri ngoone mi ci ndaat moom la ñu jël boole koog bébé mi lébu bi bébé bis yi wulli bu boowal dina ci laale ak am lycée uncaa dina ci dajeek loo karim caatu puyool bi dina ci bëree ak guy gi de mbokk yi fils de kat moo xarañ saar la caatu jolof dina ci laaleeg armée bu ndewraan mbokk yëlli dina ci dajeek kama junior ay dara moom ak ñang bawal ñoo ci ki nga xamante ne ni moom mooy la ciy Fallou Ndiaye borom Ndiaye production numéro xam ni waa ji yegsi na arène nationale yabu la de eh aka yàqamti nga fa yegsi ndax saa yoo fa ñëwee dafa lu fa kenn musul def mbokk yi bisu la neuf invité d'honneur ba dina doon ki nga xam ne mooy le président des amateurs de lutte kookal la ñu ne du jànjeko mi bëgg làmb jàppale làmb te it képp ku jug ngir jàppale làmb mu jug jàppale la kooko yi ak kan ñu ne Aïda Ndiong waalo waalo bi Aïda Ndiong doomu Sénégal Aïda Ndiong mi nga xamante ne nii mooy yaayu Sénégal mbokk yi ñoom la ñu def invité d'honneur le 9 janvier ci arène nationale Imam Mbaye bis bi nga def nga lu rëy ay le neuf arène nationale Ndiaye production yaa